damaa ñëw laaj si ndigal kër El Hadj man Jigéen dugg sëñ Mouhamadul Munir ànd ak sam papa Abdou Razak ñëw ñu tàggu sëñ bi bañ ci jógee ñëw sëñ aas ndax mook sam papa bokk ndey ak baay mu topp sama ginnaaw papa sam papa bàyyeele ma ko bi ñu ñëwee ba ma leen ne papa lii de laa mbébét président Macky sàll damaa xamanteek moom mu def parti ma bëgg cee dugg ñoo ma njëkk jox ndigal. famille sëriñ yi njëkk a déterminé wu à travers le Sénégal kër El Hadj Axmed Ndiéguène ci lañ bokk jóg taxaw jàppale le président de la république Macky Sall te su ma ci seen digal tamit du ci dugg donc boole ci am na bi sam papa gaañoo bi président Macky ñëwee si salle bi ji ma jaale si jaale si kër El Hadj Axmed Ndiéguène sam papa as mi moo ko ne xam nga ni dañ laa tooñ réew mi di ci jot te waxam jooju mel ni bal teguñu ci weer ak genn war rek président de la république yàlla jox ko réew mi mu ni ko sam as dafa dogu giñal ko ne ko réew mi xam nga ne jëng ci jot te booba euh, pour ñu déterminer wul woon tamit yombul woon mais El Hadj Ahmed Baro mi ngeen ñëw ci saalam bi tey c'était un témoignage boo xam ne dama ko bëggoon def xam ni ba kenn jàppul njege neen jàpp nañu ba problème su waree man a am ci alliance pour la république su dul man seen njaboot ñu ma ci bokk sax ni mu la ko waxee si Thiès gii lu fi mën a am muy grève chemin de fer yeeg lu fi mën a am ko réglé te ci ñu ciy ne war na ci mën a dugal loxoom ndax euh, boole ci seen bokk ci alliance pour la république ndax tamit ñu doon ñoo xam ne ci ñi ko sanc ci la ñu bokk donc papa nag ñi ko gis fii ñu ñëw dañuy ñëw bëggaan si yërmande ndax nag su dee dëgg rek ay dëgg ñii nga fi gis ñii ñoom ñii ñëpp mooy ñooy membre fondateur alliance pour la république Marème Fall mii doon wax nii sax dafa Marème njaay mi doon wax ni Ablaye Fall dafa doonoon juróomi nit yoo xam ni ñoo SME l' alliance pour la république fii si Thiès cee ci la bokk. al Abdoulaye Fall Lamine Ngone Mamadou dumbay yaa xam Pape Fall nijaayam te tamit maa ngi rappelé sax ba ñuy dem euh, euh, commissariat guddi ga ngeen déparé dem euh, fa ngeen fanaan ni Dakar jiituñu loolu dafa yàgg ñoom ñii nga gis ñii papa koo ci nekk rek histoire lañ ci mën a wax si ñoom ñoom ñii suñu naan alliance pour la république Thiès ñoom ñii la muy jigéen ñii ñoom Xaar Ndiaye ñoom Maguette Diop Seynabou Diagne Ndiaga Wade màgget njaay Sañox ñëpp. ñi fi nekk ñëpp ak ñu ma gisul si de l' autre côté ñoom ñii ñooy alliance pour la république dëgg rek a neex yàlla ñoom ñoo ko fondé ci te boobu ba léegi tamit euh, jàppale gi des na te nu mu desee naam poste mënul am pour ñëpp wande ñu leen di déglu ndax am na tamit yenn taxawaay suñ ko taxawoon Thiès tey duñu ñu soxla sax ji gisante ak le président daal la République dëgg neex yàlla te fii saal bii li ñu fiy wax dëgg rek lañ fiy wax te yàlla rek tax. bi ñu nekkee ci APR yàgg na loolu comme li ma wax sànq bi may jël parole man ba may monter sama comité mag Seynabou la woon fii ci terrain Gladia le 3 janvier 2009 boobu ba tey bàyyiwuñu PDS nag laa nekkoon nekk UJTL njëkkee fa nag nekk Benjamin libéral ba ñu mat a ñu dugal ñu UJTL kon ñun danoo judd rek tàmbalee politique daanaka bi ñu jógee ci loolu bi ñu tëyee président Macky bi ñu dee ba président Macky am jafe-jafe ci PDS. ñu génn ànd ak moom keroog ba ko président Ablaye Wade tëye fii laa déparé Thiès Lazare mag Seyna bu Njëgeen ak Ndeye Soukeye Gueye muy suñu xarit moom it bokk ci anciens yi ñu koy nuyu dafa nekk tey ci ndog voilà incha allah dinañ ci dem kooku suñu kooku suñu suñu xarit la suñu nawle la ndog dab ko jamono yii mooy xale bi nga xamante ni dafa amoon bac te ñu boom ko ca Ndakaaru kooku ndeyam ñoo doon ànd bis bu ne di dox lii keroog bañ fi déparé oto sëyna bu njëgeen la ñu jël déparé ci këram Lazare ndax booba kër ga mooy permanence bi mhm. fa lañ daan daje ñun ñëpp mu metti lool nag njëgeen muy togg di joxe di jëndi ndox di joxe di jëndi boisson di joxe di jëndi fruit di ñu jox te boobu metti na lool waaye mosul onk mu ànd ak ñun boobu ba tey nag uuf ñu yaatal ñu ci dënnam ak léppam lal sax da koy bokk ak ñun kon tey suñu toogee fii te témoigné luñu loolu duñu gor ndax nit li may faral di wax kenn du ko lekk kenn du ko naan teg gërëmul nit loo gërëm suñu borom te nag ñun gisuñu woon président Macky Seynabou la ñu àndaloon boobu ba tey gis ko te ba tey moom la ñu gis gisaguñu président Macky man nag damay faral di wax ni la façon de donner vaut mieux que ce que l'on donne jox neexul joxin moo neex wante ñun tey su fekkoon Seyna bu cëralunu kon xàddi nañu ci biir APR ndax ba ñuy ànd di dem ca permanence ba tey suñu tegoon archive yooyu archive yooyu du moins ñi ngi toog bis ba ñu defee suñu conférence de presse boobu ak madame Badiane mercredi samdi lañ ko def mercredi ñu libéré président Macky te kon ku ne xam na ne loolu lu yàgg a yàgg la bu ñu jógee fii ñu àgg yoof mu dalal ñu def la mu war a def ci ñun boobu ba tey nañu àndante ko ak suñu càmmiñ yi ñoom ñi fi toog ñëpp ay jàmbaari fàkk tëdd lañu kenn ku ci nekk am na loo xamante ni defar nga ko tey jii parti bi voilà kenn ku ci nekk am na lu metti loo xamante ni jaar nga fa ak parti bi soo ko doon wax tey jii du jeex moo tax lépp ñu koy tënk jigéen ñi nag sonn nañ te boobu ba tey amuñu dara benn poste de responsabilité moom la fi président joxe mu jox ko sëyna bu njigéen te lim ko jox da koo yokk ay charge parce que fonds politique gisuñu ko fii ci biir APR donc kon li nit ñi di wax yëpp loolu mooy coow li su fekkonte ne fonds politique daf fi am lu mu gàtt gàtt gàtt ñoom moom mii li muy jot dinañ ci mën a jotale wante nag li mu yor muy salaire matalewul kenn kon ñun li ñuy wax président mooy encore une fois tendre nañ ko la perche pour ñu mën a sauver l'arche de Noé li ñu mën nag mooy wax li nga xam mooy suñu mébét ndaxte nag ñun àndu nawle lañu àndante woon ak moom te ba léegi ci loolu lañu nekk comme li Ndiaga wax sànq mënoon nañu crier à tor et à travers parce qu'on peut bien le faire on a les moyen il des vois et moyens yoo xamante ni mën nañ ci jaar pour parvenir à cela mais loolu yëpp dañ ko teer parce que suñu ngor la ñuy deme dañu bëgg encore une fois mu xam ne lii ñuy def c'est un cri du mu recevoir ñu wax ak ñu ñu wax ko li nekk suñu biir xol jigéen ñi sonn nañu trop góor ñi sonn nañu jigéen ñi sonn nañu les anciens ñi ngi fii membre fondateurs yi ñëpp sonn nañu encore une fois monsieur le président de la république par euh, cette voix la voix des imams nous lançons un appel nous voulons une audience avec vous merci waaye boo déggee ñi fi jot a wax yëpp nga xam ni cri moo fi am waaw parce que man des fois bu ma tasee ak nit ñi sama yaram day daw parce que ay temps fii boo fi génn di wax waxi Macky Sall li si ëpp lu la nit ñi wax mooy da ngaa dof xanaa kooku nga xam du jël sax cinquième du jël sax dixième ngay taxaw di ko wax tey ñooñu ñoo toog fii tey sa saal bi ñu si gën a bari am na ñu des nag ñëpp du ñuy de am na ñu des ñu am na ñu fi toog. man maa ngi fàttaliku ba ma organisé naa fi benn marche boo xam nabu mii keroog jàpp nañ ko yóbbu ko police ak ñeneen ak ñeneen nit ñu jàpp ñu yóbbu ñu police fanaanal ñu fa lu ne ñu def ñu ko kon loolu nit ñu la defal lu mel noonu sonn la ba parti bi taxaw kon tey jii war ñu nekk ci quatrième année wala dugg ci cinquième année bi ba tey nit ñooñu ñu leen di gis di leen di yërëm ci benn côté parce que réew nag dañuy wax ni réew du question da ngay wut nguur ba jot ko ñu ni dañuy pàccoo kenn waxul loolu mais ay nit ñoo yoroon réew mi di doxal doxalin boobu dem ba doyatul waa réew mi kon yéen boo leen xeexee ba jot si kon nan jox ñooñu nga xam ne ñoom la réew mi dénk ñu doxal réew mi looloo tax nit ñi di demander ay poste loolu rek la mais du réew moo xamante ni dañ koy pàccoo parce que réew mi ñëpp a ci bokk yam ñu wax président mag Sall aussi tamit fii militant bi fi nekk militant de base yi ñi xam ni ñoom fii koo fi gis rek Macky dox na tànkam ba sa biir kër. Mhm. fekk la fa ak sa njaboot. nuyu la ñun ñi ñëpp. ñooñ bi président falo daanaka dañ leen a exposé ñu si bari rus nañoo jénn seen biiri kër taxaw di wax naan man responsable APR la loolu nag dafa xaw a doy waar tuuti ñuy wax yéen ñi nga xamante ni peut-être jug ngeen di dox tànk jàmm parce que gémmiñ tamit bu waxul dëgg wax leneen kon nag man je préfère wax dëgg même bu ma si daleen dee fekk fii ñi fi nekk ñëpp ngor moo leen fi bàyyi ak kii waaye du lu leen parti bi defal kon li nuy dund lu mitti la lu méttee mitti la bari na fi ñoo xamante ni ñoo nekkoon jàkkaarloog ñun ay temps di xeex pour Macky bañ a falu tey ñoo ñooñu ñoo nekk ci kaw nguur gi di ñu di ñu diriger di def lu nekk te loolu rafetul yow nekk nga fii ni Macky bu mu fi bu mu falu di jàppale Ablaye Wade ñun ñu nekkoon fii di jàppale président Macky ñu dem ba Ablaye Wade wàcc yow it nga nekkaat fi continuer waat di ñu diriger loolu dafa xaw a doy waar boo xoolee lii ñu romb muy au conseil bi ñu jël militant APR yi fi nekk ñëpp kenn kontaanu ci xëy na ñu bari am na lu ñuy sauvegarder seen xol ba ñemewuñ koo wax mais en tant que commune Thiès li fi nekk toll ni commune bi amul benn militant APR buñ fi investir bi investir yi jotee bi ñu demee ba président di tànn amul benn militant bu buñ si copte encore jël la loolu neexul militant APR yi te li gën a yokk nit bu xolam tàngee nag mën na def lu ne te nit ñi fi nekk militant APR yi fi nekk seen xol dafa seddul te jàpp nañ ni peut-être avant Moustapha Diakhaté di ñëw am na yeneen kilifa yi fi nekk waroon nañoo mën a dox seen diggante ak président xëy na di fàttaliku militant de base yi fi nekkoon. Mhm. mais rôle boobu la ñu joué boobu ñu joué wul nag moo tax jàmm du mën a am Moustapha Diakhaté dëkku fi mais gisuñu ñi ñi suñu responsable yi nekk fii jug dem si fa dëkk Moustapha Diakhaté di intervenir amul. dëkk Moustapha Diakhaté déggoo fa imaam yi jug taxaw ni dañuy indi sa parti ba jàmm mais loolu moo tax ñu ñëw ba cees fii ni cees parti bi dafa jaxasoo parce que ça veut que ñi nii ni président ñoom la fi teg ñoom ñoo doxul seen rôle mhm. bu ñu joué woon seen rôle maire boobu du am tàng xol boobu du am mais fi ne ñi fi nekk président mënul ku ci nekk mu jàpp sa loxo ni la post bi laa la jox mënul loolu président li ko war def na ko mooy jox nañu ay ministère jox nañu ay directeur général jox nañu lu ne ñooñu nag ñoo wëlbatiku waroon a wëlbatiku fekk njabootu président bi fi nekk ñu jaamu ci yàlla de kii kat naara ma jàppale ko si lii loolu lañu waroon a def te defuñu ko loolu nag bu fekkee président daf la fal jox la pos au lieu nga ne naa jàppale président ku si nekk naan man la ni sa bopp ngay jàppale di bëgg a fës loolu moo indi coow li mais bu fekkoon ñoom ñëpp dañoo ànd pour liggéeyal président coow doo am si dëkk bi mm-hmm. mais liggéeyalul président ku si nekk sa bopp ngay liggéeyal pour bëgg a fees liggéeyal sa bopp boobu nag moo waral tax tey jii nii nit ñi di dund coono bii ñu dund militant APR yi fi nekk amul kenn ku fi am liggéey boo xam ne da nga war ni nii lii si parti bi moom ma ko jox xanaa nga nekk fi bokk ni sensibilité bii laa bokk wala bii laa bokk kon nag ñu ngi leen di gën a ñaax ñi nga xamante ni topp toppatoowuñu militant yi nan leen gën a toppatoo bu fekkee ñun suñu kàddu jotewul peut-être si président mu ñuy dégg parce que bis bu ne tamit ñu yuuxu si rajo yi nit ñi di ñu du ñu dégg loolu fekk réglé wu ko yaakaar naa jàmb du mën a am parce que bëgg nañ tamit lii ngeen di dox ngeen am ci ndam li waral ngeen am ci ndam nag mooy ñu nangoo taxaw waxante dëgg suñu biir ñi mee jàkkaarloo yéen wax leen li ñu yëg suñu xol. bu fekkee tamit danoo ñëw fii ñi noo wax li ñu yëg suñu xol tamit dañuy génn ba ci biti dem bee sa mbedd bi daan ne ah li ñu doon wax day waaye nii nii nii waaye dara réglé wu waaye ku si nekk di am noo jàpp man nag melu noonu li nekk sama xol ak li may dégg nit ñi di ko wax si suuf bu ma jénnee loolu laa génne si kaw loolu daal laa amoon kàddu yi ma si sànni di la remercier bu baax imaam asalaamaaleykum wa rahmatullah ngatu ba keroog ñu structuré sunu parti keroog ñun ñoo daw topp école yi fu ñu dem ñu jiitu ñu fa ak téléphone ni bu leen jox parti bi saal ñu fiy réunion ñu daw dem wax ko sëy na bu njëgën mii tey mu ni ñëw leen sama saal ba jox ñu këram benn ñaar yoro njëgën moo ma formé à la coopération de Thiès booba góor gi mu ni mu ngi garage ñett ñu ñëw dajawaat fii tey pour yëkkati lañu ñu yëkkati woon te ba ñu yëkkatee la ñu yëkkati woon parti bi doxoon na ba ñu gañe tey ñu dajawaat si njëgan di ko yëkkatiwaat ma kontaan xam ni dox na dadi mbir bu bu sottee am boroom ba ñuy ànd ak mag dañ daan tëdd ci oto yi ñu ñuy reenaan waaye ñii ñii lu ñuy def nii man duma militant Macky duma militant kenn je suis volontaire de Macky Sall ñun la ñuy wax les VMS ku doxal ma ñëw topp sa ginnaaw ku doxalul ma won la ginnaaw ku bu ma seddee baax na bu ma séddul baax na ndax goreedi mi ngi commencé si nañ defar la cité président ñu ni dañuy jiital nit ki ndax moo yëkkati woon dekkal ngor ñu yëkkati ko ba mu toog tey ba ñu xalaat ak émergence bi ñu yaakaar ngay lijjanti man maa war a falu lii ak nañ ma jox sama wàll ak damay dimbali Macky Macky ñëw pour dimbali la nga ni damay dimbali Macky man xawma loolu damay liggéey pour la cité buñ ma joxee jox buñ ma joxul ma continuer sama liggéey ndax ku ne sa baay ak say waajur a la war a defal waaye du ay président de la république wala ka gërëm ngërëm ñëpp. ak yooyu yëpp ah fokk dañoo war a jóg. ndaxte tam fii wax nañu ni su ngeen dajaloo su ngeen dajaloo yéenay man ñépp te Cees tabarakallahu yàlla da koo may ñoom su seen xol dajaloo rekk ah ñu man lu nekk yàlla nag dafa wax ci alquraanam nee na atiu llaha wa atiu rasula wa ulil amri minkum na ngeen topp yàlla topp yonent bi topp ñi nga xamee ne ñoo méngoo seeni mbir te kenn ëpp ci nag euh, Macky Sall président kenn ëpp ci tam sunu autorité yi fi nekk ku mel ni gouverneur ku mel ni maire bi ku mel ni ah ku mel ni sunu ministre ku mel ni sunu ñi nga xam ne président du à l' assemblée nationale ak membre de l' assemblée nationale honorable député ñooyu ñooñu ñooy ulul amr ñooy ñi nga xam ne ñoo méngoo sunu mbir waaw wute nag yàlla waaw yàlla wute nag yàlla yàlla nag décision moom kenn mënu ko dindi lu mu décidé waane nag su fekkee ne dañ ñoo yàlla daf ñoo digal loola mu dem nag ne wa in tanazaatum fi shay'in su ngeen di xëccoo walla ngeen di xuloo ah fa rudduhu ila wa rasul na ngeen ko delloowaat ca yàlla ak yonent bi moom la gaa yi def rek waaw ba nga xamee bu joxu am na nañ ko delloo ci yàlla ak yonent bi te imam yi ñooy yàlla ñooy yonent bi waaw évidemment duñu yàlla waane ñooy représenté yonent bi waaw fu yonent bi daan taxaw di xutba imaama fay taxaw te dañ ne te dañ ne al ulama warasatul anbiya ñu ne boroom xam-xam yi walla imaam yi ñoo wuute ñoo wuutu yonent bi ci kaw suuf waaw kon su fekkee ne dangeen a def loolu te nag sunu baay ak sunu maam yi noonu lañ daan def hmm? toog naa ba tàyyi sama baay alaaji Mouhamad Jegéen baay alaaji Abdou Aziz Dabbaax ñëw seet ci ko ñu tëju di wax ci Cees lu koy defar wallahi la azim waaw am na lettre yoo xam ne Baye Abdou Aziz moo ko bind en arabe ah ko góor gi lettre yooyu mu ngeeg man fii te lépp ci affaire yi Thiès defar Thiès jubóole cees loolu rekk la kon waaleykum salaam wa rahmatullah marhaba na nga def te loolu kon kenn gënuñu cee yay ñun su fekkee ne ay imaam lañu ay ay imaam lañu ak i ulama te ñoom it ñu nekkoon fi di ulama ah, kenn gënuñ cee yey que góor gi da daan wax ne moom euh, bari na ñoo xam ne këyit moo leen indi fii këyit tam moo leen di affecté ñu dem mu ne waane ñun këyit indi wuñu fi dañ fee dañ fee juddoo yaroo fi ñu nekk fi teg Cees su doon lakk bay lakk tam dañuy bokk ak dañuy bokk ak Cees lakk waane duñ dem fenn Alaaji Moodu daana wax loolu waaw kon nag nun tam su fekkee ne ñooña dañ leen dañ leen e, donn ci jëf yu baax ak wax lu baax ah fokk moom lañuy moom rekk moom la doxal waaw moo tax ba ba Moustapha ñëwee Moustapha ba mu ñëwee toog waxtaan tam dañ ko ne loolu de incha allahu euh, nangu nañ ko bu baax que lépp loo xam ne dox lu baax la ak yónnale nit ñi ak fexe ba ko indi moo li ko waral mooy euh, président Moustapha Diakhaté ak imaamu Thiès yi dañu daje woon semaine bu le passé euh, Euh, ci ndigalu président parce que lu ñu def rek ci ndigalu président aussi lañ koy defee donc euh, président Moustapha Diakhaté ñëw déglu imaam yi imaam yi aussi ñu ni ñoom dañoo xool ni Thiès euh, bari na xiiroo ŋaayoo ba ñuy dem police c'est comme ay nit nitu diine lañu ñu fekk ay nit yu nga xam ni ay jullit lañu ñuy xiiroo ŋaayoo loolu duñ ko fekkee ci loolu la am nit ñoo xam ni seen taxawaay dafa rafet ñu am xel yu rafet ma man cee cité suñu xarit bi taxaw di Malick Dieng Euh, ku jege trop Mimi Touré le madame le premier ministre bi fi nekkoon mu dox ci initiative yu baax sëñ Umar Dem aussi mii taxaw dox ci ay initiative imaam yi woo woo ñu tey nag nit ñu woowee tey noonu la ñuy woowee tous les responsables dinañ jaar fii ci kanamu imaam yi imaam yi suñ paree dinañ def mémorandum ñun nag li ñu wax fii bi ñu duggee ci biir mooy dañu sant imaam yi ci initiative bi ñu jël ndax lii lu ñu yàgg bëgg la moo ñoom ñu def ko donc dañ ci sant yàlla di leen ci sant di wax ni aussi APR mënuñu wax ni amul problème Thiès parce que su amul woon problème imaam yi duñu ñu woote ba ñuy bay bay jubale ay nit parce que ñun ñëpp dégg nañ fi ay xeex ñun ñëpp dégg nañ fi ay plainte moo tax imaam yi wooñu ñun aussi li ñu leen wax mooy am nañu lu ñu naqari ci parti bi mais du tere ñu ànd ak yar ak teggin suñ koy wax bon li ñu naqari mooy euh, ñun ñi nga xam ne ay membre fondateur lañu ñu ci bëri gisuñu seen seen bopp ci parti bi bëggoon nañu plus de considération dans le parti bëggoon nañu aussi audience ak président de la république parce que depuis bi mu faloo ba léegi ñun anciens yi mënuñu toog ak moom en audience bëgg nañ toog ak moom ñu ngi ko koy ñaan di ko ñaan le président Moustapha jaxate mu dimbali ñu ci di wax aussi ci li ñu naqar yi aussi responsable Thiès yi ànduñu loolu aussi nañ ñu ngi leen di ñaan responsable Thiès yi ñu ànd mhm. loolu aussi ñu ngi koy commencé ci suñu ministre le docteur Augustin Tine le coordonnateur départemental ñu ngi koy wax ni na ñëw dajale ñëpp uuf ñëpp mu ngi koy def mais mu dolli ko di ñaan aussi la ministre Thierno Sall euh, mu gën a yaatal dënnam woo ancien yëpp toog ak ñoom woo ñeneen ñëpp képp ku mer ci biir commune Thiès mu woo la uuf la wax ak yow ñu xool problème yi xool solution yi ab góom soo ko bëggee faj da koy xool yi dindi salte yi ci nekk yëpp doo ko faj loolu je pense que mooy solution bi nga xam ni moom lañ préconiser pour Thiès. waaw euh, je pense que loolu aussi am na ay ay ay ay ay ay ay doléances yoo xam ne enseignants yi wax na parce que ñu bëri ñu ngi mettitlu ñàkk a réunion yi am même su nekkul réunion je pense que une directoire man loolu laay proposé ñu def benn directoire bu ndaw président moo xam ñu mu ciy coopté euh, enseignants yi am fa ay représentants responsable yu magu Thiès yi am fa ay représentants Euh, le ministre Augustin Tine chapeauté ko ñuy daje chaque mois wala chaque quinze jours ñu xool les problèmes du parti à Thiès ñu xool yan solution lañ koy régler ñu xool yan activités la ñuy animer parti bi aussi le parti ne s'anime pas aussi loolu aussi ñu xool dégager un programme commun ñëpp ànd bokk ndey ak baay ñu mën a avancer préparer élection parce que élection doo xaar ba mu ni këtt ni joon nga bëgg a gagner Idrissa Seck heure bii nga koy préparer li ci des bareetul je pense suñu mettre en place directoire boobu dégager une stratégie de communication une un plan d'action bu leer nañ xam ni tey fii la ñuy dem ñun ñëpp ñu ànd dem foofu dem feneen dem feneen ñëpp ànd joxante loxo bokk ndey ak baay je pense que dinañ gagner Idrissa Seck incha allah ci élection législative yi